faslu li ab dog la fii bayaani tasrifi xayri sulaasi yi ci leeral soppi lu bokkut ak sulaasi yi ñu ab ñëpp afaal ci tëgg fi'al yi loolu weesu mooy sulaasi yi luñ koy soppee fi'al yi nag ñetti araf ñu bëgg a ñëw ci lu ëpp sulaasi yi lu ëpp sulaasi yi moom mën naa nekk rubaax yi mën naa nekk xumaas yi mën naa nekk sudaas yi yooyu nag loolu bëgg a wax wamaa la nga xam ne yalihi dana ko topp aaxirul mustaqbili mujug fii lu mudaarihuma yëg saru def na ko kasara fii xayri sulaasi yi ci ludul sulaasi yi aljal yi koy aji feeñ dañu li njëkk xamal te nga jàpp ko rek mooy su fekkee fexal ba ëpp na ñetti araf yaa rek boo ciy tëgg mudaarihu ñoo ciy am solo ñoo ci war a soppiku mooy arafu njëkk bu ga lan nga ko war a maas mooy benn ak araf mudaari ba nga cay def loo ko war a maas araf mudaari ba nga ciy def loo ko war a maas moom teel nga ko jàng lool ci mu tam mët ci njëlbeenam dañu ko waxaat fii léegi nag lim toll nag mooy mujjug lim toll nag mooy araf bu njëkk bu ga loo ko war a maas kooku dañuy da nga jàpp ne da nga ko war a kasara waaw su amul taay ndool ci njëlbeen nga ay kasara la njëkk mujj ga boo ko misaalee ci daxaraja bëri na xam nga ëpp na ñetti araf te amul taay ndooleen su boobaa raabo bu njëkk mujj da ngay kasara ñu wax yu dax ri yu dana biram yu dax ri kasara njëkk mujj gi bu dee istaxfara sàkku na njëgal kooku juróom benn la faagoo gi njëkk mujj bay tëgg mu daal ñu koy kasara ñu wax yastaxfiru yastaxfiru bu doon juróom itam ne ikkata sa ba fàggu na jàppal ne si soo soo si njëkk mujj da nga koy kasara bay tëgg mu daari xam nga ne yàkkta si bu mu des na boo amee taay ndoleen mooy illal la si ndare la nga xam ne yu zaaxu def na ko tëggee min tafaan la la ci tafaan la la wa shibhi ak lu nuroog moom fal fatahu fataaga lil xaraf yi ñeel arax wa injala feeñ na nee na bu fekkee dafa am taay ndoleen taay ndool yett ñoo ko am tafahala ni ki takarrama tafaahala ni ki tadaraba tafaan la la jimu wax ni ki tadaxaraja yett yooyu ñoo am taay ndoleen yooyu nag moom boo ci dee tëgg mu daarixu araxu njëkk mujj da nga koy fataa te bañ ko kasara ni ki dara yattaxal la ma xamlu na ba takarama dangay wax yattaxal la mu bul wax yattaxal li mu takarama dangay wax yattakarra mu te bul wax yattakarri mu ku mu ne tadaara ba dóorante ne dangay wax yattadaara bu te bul wax yattadaari bu ku mel ne tashaaraka dangay wax yatashaara ku te bañ a wax yatashaari ku tafaan loola mel ni tadaxaraja ngay wax yatadaxra ju te bul wax yatadaxri ju te zalzala yaari raaso yin ngay wax yatazalzalu waaw te bañ a wax yatazalsilu kon fi mu toll jàppal ne yaari way yi dugalal na la mboolem araf yi ñu baam ko jàppal ne kon yaari way yi dugalal na la mboolem fi xal yi nga xam ne ñoo ëpp ñetti araf boo ci dee tëgg mu daarixu arafu njëkk mu gétam war a sottiku te nga war a xam loo koy maas ñaar yooyu wax na la ko loolu rek moo des araf mu daari nga cey def ba mu doon mu daari mu noon mbaa am sa mbaa yaa mbaa taa moo koy def te nee naa woon mu tam mu teel na ko wax loolu rek la ñu baamuwaat fii tam mooy waftax na nga fataa ahrufal mu daari arafi mu daari ma maa xaddaa fi'al ndare fi'al rubaahiyan bi ko jóg ñeenti araf kooku fa dammuhu dammam nga moom ba daa feeñ na waaw nee na fiil ma mën doon boo ci defee araf mu daari benn mu nuun ba am sa ba yaa mbaataa da nga xool ba xam ñeent la mbaa doonu ko bu fekkee ñeenti araf la moom boo jokkee kenn ci araf yooyu da nga koy dàmm li ki bu dee daxarajo bëri na ji misaaloon léegi boo ci defee yaa da nga koy dàmm mu daxariju boo defee nuun def ko mu daxariju boo defee taa def ko tu daxariju boo defee am sa it noonu u daxariju boo ko defoon ci akrama yi noonu akrama day ñàkk am sa ji moom boo dee indi araf mu daari xam kenn du wax yu akrimu mbaa nu akrimu déedéet xam sa day dañ mu des yukrimu mbaa nukrimu mbaa tukrimu mi wee mu des nag bu fekkee nekkul ñeenti araf loolu mën naa doon ñett ni ki nasara dimbalee na jamu tam moo waxan ngay wax yansuru mbaa xaraja nga ne yaxruju boo defee nun muy naxruju boo defee taa muy taxruju boo dee am sa muy axruju mën naa doon juróom ni iktasaba ji nga wax léegi iktasaba xam nga juróom la moo intalax ja mu tam ma indi woon ñooye moo mooy muy wax yan talixu mbaa nan talixu mbaa tan talixu muy wi mën naa doon juróom benn ni istaxfara ji nga wax juróom benn la yastaxfiru nastaxfiru tastaxfiru astaxfiru jàppal ne wala kon dugal na rafu baari boo ko defee ci fexal fiilu maadin ngir bëgg koo soog mu daal loo koy maas yetti way yi fi mu toll jàngal na la bépp fexal boo xam ne du sulaas yi rek noo ko war a tëggi mu daal loo ci umbul rek loo ci umbul rek nga seetluwaat ko ci noonu ñu ko waxee ndax nañ la yaar rek moo ci soppiku araf wa njëkk mujj ak arafum baari wa taw ju nekk àtte nañ ko àtte bu gàtt gàtt mu des ismu faahim moom du ko tax a jafe faddal mu dàmm ga wal kasru ak kasara ga yelzamu dana war la basmil faahili fa ismu faahil ma moom ndaa xaw a gàttal woo waxin waaye daa bëgg a wax ne boo bëggee tëgg ismu faahil aji nangam ci fexal boobu ñetti araf da ngay tëral maa nga xam mudaarix ma nam daan mel ba mu jekk nga dagg nag araf mudaarix wa weccee ko miim goo xam da nga koy dàmm fi toll fat dàmm jéem wax da ciy jublu boo daggee araf mudaarix ba miim nga koy wottee miim boobee mooy dàmm kasara gi wax itam mooy daa bëgg a wax ne la njëkk mujjee bu fekkee kasara wutoon da nga koy soppi kasara bu fekkee kasara woon nag moom nga bàyyi ko noonu mu noppal la bu misaale ko kal mukkri mi ni ki mukkri mi bi firi aji terale wal muwaasili ak muwaasili bi firi aji jokkoonte xam nga mukkri mi daa bàyyi ko ci ak karama teral na kooku ñeenti rox la boo ci bëggee aji nangam da ngay tëral ma ndax mu daal fi ni war a mel mu mukk ri mu nga dindi yaa ngi fi mu nekk wecceeku moom du daam daal soppi ko mukk raam njëkk mujj fekk na mu kasara nga bàyyi ko noonu kon xam nga ismu faahil maa ngoog muy mukk ri mun aji terale su doon arsala yónnee na nga bëgg wax aji yónnee mel na yàlla noonu ngay def da ngay def yuruf silu noonu mu daal war a mel nga dagg yaay ji wecceeku mi mu daam fekk na sin soo si njëkk mujj kasara na mu ba noppi nga xar ko bàyyi noonu rek mu daal nekk mursi lun aji yónnee su doon mu waasil ji mu wax day bàyyi ko ci waasala jokkonte na boo tëggee mu daari muy yuwaasilu dana jokkonte boo daggee yaay ji ne weccee ko mi mu damm fekk na saat gi njëkk mujj kasara woon naka jekk nga bàyyi ko noonu mu daal nekk mu waasilun aji jokkonte nga misaal nag bu fekkee li njëkk mujj daa fataawoon xam nga fekkee daa amoon taay ndool lu mel ne taddax rajo bërëmu na xam nga mu daal di mooy yetta daxra ju lay doon su doon taxal la ma xam lu na yetta xal la mu lay doon foofu nag moom boo bëggee ismu faaxin gannaaw boo daggee yaay ji ba weccee ko noonu ko dàmm xam nga lay des mu ta daxra jun wala mu taxal la mun yooyu nag boo jubloo aji biramu wala aji xamlu fataagee njëkk mu gi danga koy soppi kasara fa nekkan mu ta daxra jun danga koy soppi mu ta daxri jun aji biramu su ko defee fa doonoon mutaxalla mun nga soppi ko mutaxalli mun aji xam loo gis ma foofu nag moo ci des kon moom itam lu yomb la wa yuftaxu def na fataa maa la nga xam ne kasara te kasara woon nga ko fis mi mafhool ci ismu mafhool loxoo ñeel lépp ñetti raf waaye nee na ni nga waxee woon ismu faahil mi léegi rek leen dong moo cee soppi ko mooy njëkk mu gën kasara woon da nga koy soppi léegi fataa mu ne mukrim jee nga waxoon muy firi aji terale boo fataayee raaga rek raaga njëkk mujj boo ko fataa rek muy mukkra mun mu soppi ku ñu teral boo nee mukkri mun muy aji terale boo nee mukkra mun muy ku ñu teral fay boo nee mu waa si lun aji jokkonte muy ismu faahil waaye boo nee mu waa sa lun ku ñu jokkonte muy ismu xool moo tax yàlla mooy mursi lun aji yónnee mursi lun aji yónnee yàlla waaye mursa lun mooy kañu yónni mu yonante bi ba tey yàlla mooy muqaddimun aji jiitale muqadda amun mooy kañu jiital ne yonante bi man rek mooy teqal yooyu yaar tax mu ne taxaw li ko ni sax ji nga ne idhab demal muy xamal mbir mooy ku ñu yankiwal wa mukraman tey ku ñu teral maanaam mool mi war moom dafa jiital mukraman waaye xanaa mool yi mu menam daal moom ñu benn la sax ndax mu lu ne mën na ko daaneel waaye boobu laa jiital idhab demal mul xamal mbir mooy ku ñu yankiwal wa mukraman tey ku ñu teral noonu la mool yi daan tegalee moom ci mën doon rek boo defee mul hi mun muy aji yanki wale ne ne yàlla mu nga xam ne moo dugal loolu ci sa xol boo defee mukkri mun muy aji teral waaye boo ko fataayee nag muy mul ha mun ku ñu yanki wal mukkra mun ku ñu teral wal masdaru masdar ixtalafa woote na fir rubaax yi ci rubaax yi waxeer yi ak lu dul rubaax yi min jumlatil awdaax yi ci mboolem tëralin yi nee soo ñëwee ci masdar yi nag moom dañu am woote maanaam boo ñëwee ci rubaax yi muy fexeel bu doon ñeenti araf seen rubaax yi du bokk ak lu ëpp ñeenti araf dem naa dem sax ba ba ñoom seen jëm bopp sax ñoom rubaax yi seeni mastar bokkut kenn ku nekk am nga sa mastar daañu ko leeral léegi waaye moom jëfewut kon jàppal ne rubaax yi ku ne am na mastarum boppam boo leen jàllee nag jëm ci xumaas yi jëm ci sudaas yi itam ñu wax la seeni mastar rek te nga jàpp ko ndax jëfewut li faaxala ñeel na faaxala al fihaalu fihaalu wal mu faaxalatu ak mu faaxalatu faaxala rubaahi la am na yaari masdar mooy fihaalan ak mu faaxalatan niki qaatala xeexante na boo nee ci qitaalan ak xeexante muy benn masdaram boo nee ci muqaatalatan ba tey muy masdar ñaareelam wala daaraba nga ne ci diraaban wala mudaarabatan wala xaasama xulonte na saat lay doon nga ne ci xisaaman an saata xaalal ko wala muxaasamatan loolu mooy faaxala bu ñaari masdar la am li afxala ñeel na afxala al ifxaalu ifxaalu laa mujaadalata amul benn biijoo ci jooju wax afxala moom benn masdar la am mooy ifxaalan nekk akrama teral nga ne ikraaman wala adxala dugal na nga ne idxaalan ab dugal wala axraja génne na nga ne ixraajan ab génne wala ahsana rafetal nga ne ihsaanan ab rafetal li faxala ñeel na faxala at tafxiilu tafxiilu naxu an nag moom at tafxilatu tafxilatu maanaam faxala ni ki karrama am na yaari masara am na tafxilan waaw su laam gi wéree mën na karrama am nga miin ak moom la laam ragut kon tafxilan moo ciy bari ni ki karrama ni ki zakka sellal na wala asakaal na tazkiyatan wala samma tudde na tasmiyatan wala namma dolli na tanmiyatan loolu bu la nga ràggee li gën a bari wa faala la faala la al fialaalu mooy fialaalu tummal faalalatu topp faalalatu maanaam faalala rubaahi la moom am na yaari masdar am na fialaalan am na faalalatan niki daxraja béréb na nga ne ci dixraajan mooy fialaalan wala daxrajatan mooy faalalatan wala zalzala yëngal na nga ne zilzaalan wala zalzalatan yooyu yaar moom la faalala wa duma na nga daam maa la nga xam ne yarbaaw dana ñeenteel nun tafaala la ci tafaala la maxa tafaaxala ànd ak tafaaxala kazalika ni tafaxala tafaala maanaam commencé yi nga xam ne taam moo leen tàmbali mu yett yi yooyu moom seen maslar yomb na arafu ñeenteel wa rek moo wa njëkk bigga boo ko dàmmee rek mu daal sopp ko maslar ni ki tafaala la ni ki tadaxaraja biramu na soo ne tadaxaru jan mu daal nekk ak biramu mu ne tafaaxala ni ki taxaafa la boo nee taxaa fulan rek mu dal doon ak sàggan sàggan lu muy masdar bu dee tadaara ba boo nee tadaaruban ba tey mu daal di koy doon tafaxala nga demee ne taallama xamlu na boo nee taalluman wala takarrama nga ne takarruman wala tasallama nga ne tasalluman kon jàppal ne yooyu am taay dooleen moom seen masdar yomb na mooy ñeenteel ba tamit arafu njëkk mu jóg boo ko dàmmee rek mu soppi ko masdar yi des nag moom mu yetti xumaasi yi ak juróom-benni sudaasi yi moom ñoo bokk masar noo ko ciy dëggee ndax ñoom ñëpp am sa bës lu moo leen tàmbali te ku am sa bës lu tàmbali rek ni nga ko bëgg waxee lay doon mooy wa kullu ma lépp loo xam ne yub daa def na ko tàmbalee bi xam si waslin ci am sa waslu fa mudd na nga bijji maa la nga xam ne xabalal axir yi nekk na ci njëg mujj maddan ak bijji wala takfiri te nga kasara ak taalisa aj ñetteel ji mun ci moom mutlaqan ak lu mën di doon taati kon nga dikkee bi mastarin ci mastar la xoo ñeel ko mu xaqiqan mbir mu koy aji dëggal nee na mboolem yi nga xam ne am sa waslu moo leen tàmbali seen mastar yomb na danga wàññi ba ci araf ñetteel wa nga kasara ko araf bu njëkk mu gën nga bijjee ko alif loolu dong lay doon kat mel ne ikk tasa ba fàggu na boo ci bëggee mastar nga jàpp ne taatoom bi googu mooy ñetteel bi mu tax nga kasara ko ni ikk ti si soo si moo njëkk mu gi nga bijjee ko alif mu ikk ti saa ban lay doon iqtadara boo ci bëggee mastar nga ne iqtidaaran istaghfara sàkku na njëgal boo ci bëggee mastar nga ne istighfaran xanaa nga jàpp ne taatam bi mooy ñetteel bi faaga moo njëkk mujj nga kasara ñetteel bi bi ci la njëkk mujj ak alif intalaxa nga ne ci intilaqan iqtatama nëbb na nga ne iqtitaaman jàppal ne moom mboolem yi am suuf tàmbali moo xam dañoo nekk xumaas yi moo xam dañoo nekk sudaas yi ñoo ci yema seen mastar noonu dong lay doon tax mu jafewut wa faxal la ifaxal la wan faxal la ak in faxal la fil xumaas yi ci xumaas yi wa fan la la ak ifan la la ifxalal la ak ifxalal la fi sudaas yi ci sudaas yi lusoo mu xaa seen gulaasim mun xati mun aji war la man nga ne tan talaxa ni ki in talaxa boy na wasu warra ak is warra jéng na wattama an na ak ittama an na dal na xëy na xaram baqa ci waxtu wa mu yolom loo nee na am na yaari tëgg yoo xam ne commencé yi lañ te foo leen fekk dañuy lazim maanaam xew-xew ba duggee na ko ko def ifal la mel ne iswarra jeng na jéem wax wala ihmarra xonq na wala ibyadda weex na wala iswadda ñuul na ifal la foofu fekk day laasim ak in faxala in faxala mooy lu mel ne in xaddama màbb na xam nga ne naa woon wolof mu mënta mënta xàmmee yooyu yaar waaye boo nee xaddama màbb na mu sulaas yi moom day jàggati am na ko toj ak lu mu toj waaye boo nee in xaddama màbbal na boppam lay firi mooy niki in xaddamal binaaw te wax bi toj na jublu ne am na ko ko toj waaw kon jàppal ne in faxala moom day laasim boo ne in ka tamit nubb na lay doon waaw kon baat bu daa jàggati da nga bëgg mu laasim leneen tëgg ko in faxala boo ko def in faxala rek mu daa doon loo xam ne génnut ka nga xam ne moo ko def yooyu yaay kon commencé yu lañ foofu fekk dañuy laasim yaay ji des nag sudaas yu lañ waaye foofu fekk dañuy laasim ci téere yi muy if xan la la niki ixram baqa yolom lu na wala ihran jama rankaloona gëléem ya wala iqxan sasa daas daas lu na yooyu foofu fekk dañuy laasim if xan lal la it mel ne it ma an na dal na ak isma azza fañ na yu mel noonu if xan lal la foog fekk day laasim waxayru saa yu dul lii waxayru daa mën na itam waxayru dii yu dul yii min jumlati awsaani ci mboolem màndaxe yi xat yata xaddaa amaana mu jàggati xasabal maani kem maanaa yi nee na yu bokk te yi ne moom xëy na mu jàggati maanaam xew-xew bu génn ka ko def jàll ci keneen mën naa jàggati itam benn mafool dong mën naa jàggati yaari mafool mën naa jàggati sax ba wetti mafool xëy na des na mën a leeral ci téere ñëw ci kanam baabul li ab buntu la fii siixatul amri ci tëggug lamar